mami def ci ay asiko déedéet déedéet déedéet walaay asikoog mbalaxa ca yam léegi comme que ñun wayi alaaji jiguñu waaw arrangé wuñu waaw léegi daal nañ ko def xoolal mm-hmm. mode fast track président buy joxe drapeau bi bu mu ko joxee sax ci palais bi mbir mi dem ay xumbaay ak rumbaay nañu dem aéroport bu dee daf leen di jox gaayen euh, euh, sa Pointe Sarène ñuy démarrer fii ci Yoff alaaji mu jox leen ku ñu tëb nañ dem ba ca buntu avion ba rek mu teg ko ca loxol capitaine ba gars yi yéeg roppalaan nga dem rek jeex na ah, voilà voilà fas waaw yéen tamit nag xanaa demu leen pour jëli ci ndam. sobre et ah, leen ñu woo rek kii. ñu woo am sañ-sañu diffusé na diffusé ku amul sañ-sañu diffusé bu mu ko diffusé parce que fu ba léegi business la. alaaji bàyyi leen baax na baax na baax na xoolal wuyu euh, mami. mami bale traditionnel ak ballet moderne ca yam nañ ñu dimbali li léegi ñun ñoo leen ko ñaar. mais tradition gi ci la gàllaaj gi ne de. bu bu bu amoon gàllaaj ñu gañe ko. danga ne ko ba ñu juddoo ba léegi mënagu ñoo gañe ko. danga ne waaw léegi kon kon a ngeen yaakaar ne daal mumbaay bi la. Asmara 63. ak Asmara 60 62. ak Asmara 2019. Asmara moo nekkoon fan. alaay defal ndàkk rek. lii laay jaw Asmara laa bëgg a fan la nekk moom. Soudan leeralal ko ko. bisimilah. Hmm? leeralal ko ko kapitaalu fan la woon. ah Alaaji woo tonton woo tonton laaj. laaj balaa ma ko expliquer timing ba jeex. Maodo eh, dégg nga loolu Maodo Fatou Saraj. voilà ñu woo tonton Baye. ci mille neuf cent. ay réew ma jàpp. ay waxal ma jottali la. lay jow ci 1967. boobu maa ngaa football ci la Saint-Louisienne ci atam Augustin mii ngeen gis baayam Pascal Senghor mii moo ñu doon defal ex centre gauche. ci Asmara 63 la. le président Youssou Ndiaye mii nga gis ci atam Casa Sport mii tey Mbose bu Kaolack. Jeanne d'Arc de Dakar Jaraaf de Dakar. la Saint-Louisienne gi nga mm. xam ni falaa doore keroog ñu ngi taxaw ak Golbert Diagne ma ne ko gol mu ne ma Diagne ma ne ko équipe bii nga gis tey. nga ne mu ne ko gol mu ne ko ja. bi ma ne ko gol noonu lañ ko doon wooy mooy bàyyi malal mii tey ci rajo bi ma wax ko ci la ñu fa jéggi dem ci Asbara. les jeux de l' amitié stade de l' amitié bii nga gis Demba Diop mii moo tuddoon amitié ginnaaw gi lañ ko tuddee Demba Diop ca la ñu fa jóge François Bocandé yéen dàll ba arbitre ba ñu suspendre ko à vie mu nekk ku bëgg a dëkkam Bocandé mii tey ngeen gis mais ay 63 ñun yooyu xamuñu xamuñu kubu xam nga kubu 63 yooyu mooy yéen kub eh, alaaj hmm? kub yi daan am bant. Ah. <laughs> les de la musique. mooy asmaraak. ñun dañoo bëgg kay. <laughs> Kambel ni mooy Érythrée. <laughs> uy danoo bëgg gagné coupe euh, d'Afrique euh. dégg nga. ay zone lan la moo tax ngeen yaakaar ne seen ñàkk gagné coupe gi ci mbalax gi la dëppoo. non non non attends na nekk feneen. non non non yéen xam nga lu ngeen war a wuti ay ñaan. non defal nga waaw defal naa ma expliqué. leen ay ñaan waaw non ay ñaan yàgg nañ koo wut. mais duñ gagné déglu ma expliqué. déedéet mais dafay fekk xoolal il faut xool yëpp booloo nii. non mami Samb déglul. ngeen àndandoo ma euh, mm. mm. ni mm. gis nga ñeen ñun danoo xam football tooguñ ci rajo yi di football football lu dama ne. Hmm. moom daal comme kii yi ñu doon def yëpp. lu ëpp cinquante huit ans ngi nii ñu koy def. Hmm. te mënuñoo fexe ba am ca ndam. Hmm. nañ def rupture. laal feneen. yow booy def leen xam nga li ñu naan on change pas une équipe qui gagne bu doon dañ koy def chaque année ñu gagné. dañ naan lii buñ ko changé. waaye loo xam ne yow 1945 ba tey yaa ngi koy def. ci ginnaaw deuxième guerre ba ba nit ñi talee football. te mënoo fexe ba gagné nañu ko léegi yéen lan la musique bi daal moo tax gañaw léegi. dégg nga yi ay Milan AC da ngay gis seen équipe yi ñuy bind ay mille huit cent quatre vingt neuf am nañ cent ans et quelque. Mm. ñun suñu football bi réew mii daanaka bi gars yi fàttalikoog léegi yàggul mënuñoo gañe ko mais léegi nañ bàyyi yooyu. mais sarax leen def leen ay sarax ci ngeen bàyyi eh. mbalax mi. Eh, alaaji nag mbalax bi di ngeen ko bàyyi nag. ah waaw baax na. Ah, di ngeen bàyyi équipe buy dem. ballet traditionnel gunge ko ba aéroport. ñu fecc ay asiko bale du dem. ah dina dem nag. bale bi du dem de. sarax leen. bale bi dem génne leen ci rey leen ay nag. gaynde. ñu def ko comme ni ñu def Ibrahima rek ñu dem loolu sax lañu waroon a def nag. boo bëggee dëgg dëgg ngeen dem fan. loolu lañu waroon def. dem fan. waaw Matar ñu bàyyi bale ba. Matar ba jël drapeau bi rek jox gaynde ñu dem. waaw loolu loolu moom d'accord. gaa yi gunge leen. loolu d'accord naa. ah wuti. waaw c'est euh, euh, ministère am. te Matar nag ñëpp ko yéene nag ndam nag. te li muy bëgg ndam yi ñun ñoo ko gën a bëgg fuuf réew mi ci boppam ñoo bëgg coupe. non coupe d'Afrique moom il est temps balaa may dee ñu naan Sénégal une terre de foot une terre de foot terre de foot boo xamante ni yow soo gagné coupe yow bu ñu ubbi woon tey sa bibliothèque ñu fa fekk benn coupe zéro coupe zéro palmarès zéro. ci waaw am ay réew yu la dàqat yi économiquement nga gën leen a toog diplomatiquement nga gën leen a toog administrativement politiquement nga gën leen a toog ba ci sportivement. Mm-hmm. mais ñun li kale mbir mi laa xamul. lan la waaw mais da ngeen di ndëppal football bi football bi ngeen di ndëppal loolay wax ji. ndëppal leen ko génne ay sarax laal laax yi. Lamine Lamine seddale soow yi. Lamine petite catégorie bi il faut ñu jublu ci de. waaw petite catégorie gii ku xool ay Ajax d'Amsterdam. ah loolu mooy loolu mooy loolu mooy yoon bi. Lamine Lamine petite catégorie bi il faut que Sénégal jublu ci. mais loolu yoon bi yoon bi kay c'est clair. te dañ koo rey nag. yaa suy amatul valeur. te ay temps ñun jamono ñu nekkee primaire IAS yi nga xam ne ministre bi sax da daan ñëw teew. ah ñu ngi koy commencé kii yar ndànk ah! xam naa ne day le mode de fatataraj yi ah tonton day war na cee. fat fatataraj la ak ban. fatataraj la ak ban amoon na beneen. man daal xaw ma de. man daal fatatarajam ji daal. yéen yéen di ngeen dem yéen président. déggal yàlla nee na ma en 63. Wakam était le vainqueur de la Coupe du Sénégal dégg nga lii. Côte su Xadi nee na la Côte su Xadi Diop daf rek. ah nee na il faut ñu am bonjour ak ay techniciens yu baax. voilà yëpp daje leen. mooy kii moom. ci xaw ma lu ay joueurs. ah. ko xaw ma lu ñu ñàkk waaye du ay joueurs moom. waa kon lan mooy problème bi Alaaji. kii nee na ma il faut la la ligne hmm? le dialogue. déet dialogue bi kay. moom dañ leen bàyyi ñu dialogue rek. Ah, ñun kay li ñuy dialogue moom boo bëggee ñu ubbi antenne bii. coupe bii daal fi nii man moo ma tere nel waaye seen dialogue bii nga xam ci lijjanti seen i mbiru élection kay. yéen kay leen ko ca. yéen kay la waaye na delloo ko ca alaaji. moom kay delloo ko ca rek. coupe bi daal ñëpp a bokk te seen dialogue bii da di xool la ngeen fay waxtaanee ak loolu leen dul waxtaanee. fii ngeen njëkk a tëgg dialogue génnee Karim yóbbu Qatar tëggaat dialogue dóor seen parrainage yéen a ngi nii di tëggaat dialogue te aji élection dong lay mujj di ñun coupe bi lañu wax boo leen bëggee coupe bi daal ñu ubbi antenne bi ngeen wax ñu lan la ñu war a mën a def ba coupe bi ñëw ci mim réew ah loolu dëgg de voilà wax dëgg yàlla parce que coupe bi nag alaaji ñi bëgg di naafi la ba fajar ak ñi bëgg di tukki ak ñi bëgg di commerce ak ñi bëgg di nekk ci leneen yàqalu leen dara mu ñëw fee ñàkk fee ñëw yéen ñoom yàqalu leen dara. tamit liñ ci bëgg a def ci xaalis mi ngi bëgg a bëri. te coupe bi liñ def dafa bëri. <laughs> coupe bi liñ ciy def. campagne bu ne. budget rek 3 milliards. alaaji campagne bu ne. Hmm. nga bëgg laar ñetti milliards jëm kaw coupe du monde ba ñaata milliards la. bàyyi woon na de. 7 milliards xaw ma ñaata ñu ñëw fii ne 3 yi ñoo jot a dugg léegi yii xaw ma li lii. bàyyi woon na de. Modou Fa Fa Fatou Tara ñaa ngi bëgg a diis. fii ba Russie dem ñëw toog premier tour ah. <laughs> coupe du monde ba léegi koppar ga fa jógee woon 2002 ñu naan nañ ci yaa ngi nii tey la ñu gën a bon. Hmm. Demba Diop ba ne ràpp tëj léegi nii mënuñoo fexe jublu ci laa lex ni moom ubbee quoi. xam naa ne temps yii signe nga sport bi fang. Eh, bañ a signe a signe fang nga. yow. laaj sa waa ah, eh, bi moo ma xeeñ alaaj bi bi waaw coupe bi de war naa ñëw de. coupe nag dafa war a ñëw. ba man ba pare kan bii sunu kan la de. ma lay wax ma xeeñ. kan bi sunu kan la. déggoo ma de. Ah, waaw xam nga gis nga équipe buy football. Mm-hmm. ñu mëne ko. Mm-hmm. yow bu dee technicien nga. Mm-hmm. ngay gis égalisation bi ni muy ñëwee wala da ngay gis yow di waaj a jëlaat deuxième bi. tu vois l'égalisation venir. waaw kay. coupe bi nag noonu la ma xeeñee man en tant que sportif moo tax ñu nii maximum de pression Égypte laa jëm. da dem de man kay égyptien yàlla nañ ma may visa rek. dégg naa ñoom it dañuy dagg ay visa de. ah waay di visa ñoom it Afrique rek ah. mais du ñàng de. Hmm? du ñàng kay. du kay man kay alaaji fi mu nekk nii ñoom sax dañ ñoo yoreel bor na non non non non non moom fen rek laa leen nawee alaaj hmm. soo leen fekk jee hmm. doo gañe dañoo am ful la boo fa jëleewul benn point moom doo fa jëlee trois points naar yi seen ramasseurs yi ca sàcc ga la ñuy bokk. Mhm. ca lan la ñuy bokk. supporters yi dañuy bokk sa sàcc ga. pression bi policiers alaaj alaaji yi. waaw.